man li ma jàpp mooy président comme li mu waxoon 2013. Mhm. bi muy doog falu juste dafa ni désormais euh, mines yi nga xam ne dañu nekk Sénégal. Mhm. di produire or. il faut ñu jël benn quota boo xamee ni dañ koy déjee les bijoutiers. Mhm. du Sénégal marché locale ñu koy produire. Euh, loolu président moo ko génne ci. làmmiñam wax ko ñëpp di ko dégg waaw loolu wax dëgg fa yàlla nag ba léegi jotaguñu ci donc ñuy lancé nag vraiment euh, président de la république du ko ñaan comme moom li ko fi dese bëriwul mm-hmm. balaa muy dem bu ñu soxla bu ñu sañoon première lingot d'or bi dina ko jël teg ko suñu loxo suñu comptoir bi nga xam déjà parrainé depuis deux mille dix neuf. waaw waaw ko chambre de commerce euh, kii ni ko defar nañ ko ba pare. te loolu ci seen digal lañ ko defee. defar ngeen comptoir. defar nañ ba pare. pour di recevoir pour war a recevoir or. jaay ko biir. <laughs> jaay ko suñu biir. produire ko suñu biir. jaay ko Sénégal légalement mi wax nga ko léegi mi ngi village artisanal. Mhm. fa la siège bi nekk. ba léegi dara. te jàpp naa ne man waxu président jëfe la bu xësee ba wax rek jeex na. déjà loolu liggéey nañ ci nag ñun liggéey nañ ci ba boucler ko parce que ñun tey bi ñuy bi ñuy fal euh, président de l'association peut-être suñu euh, mébét moo doon fexe ba comptoir bi taxaw approvisionnement bi am jeex na bu ñu ko réussir rek li ñu bëggoon am am nañ ko mais nag di wax aussi tamit ñi nga xam ñoo ñu fi yebal ñuy membres yi ñun liñ ci waroon liggéey liggéey nañ lépp ba boucler ko hein pare nañ ci mooy liggéey nañ comptoir bi liggéey nañ waxtaan nañ ak niveau des impôts et domaines moment bi fii Bassirou Samba Niasse nekkee ku baax vraiment moom dalal nañu boole ñu ay inspecteurs ñu liggéey ci ba jël suñuy dossier jox leen ba ñoom reconnaître nañ ni ni or kenn waru ci fay taxe TVA warul nekk dañ ko war a taxer rek comme euh, essence. Mm-hmm. comme carburant voilà nga xam taxe bu faible la. Mm-hmm. donc parce que euh, devise la luy comprendre nga. Mm-hmm. donc déjà loolu boucler nañu ba teg ko fa li des mooy peut-être ak ministre bu bees bi bon xam naa. jéem Euh, mooy. Euh, finance xam nga finance. xam nga finance booy euh, booy xool finance. fële ci ñoom lañ dépendre. direction pour transversale benn ministre. non du benn. parce que mine mooy yor affaire. affaire mine yi. wax ak finance. finance mm-hmm. moo yor taxation. artisanat mm-hmm. Mm-hmm. moo war a développer xalaat naka lay def ba nga xamee nii voilà euh, secteur bi dina gën a jëm ca kanam. commerce commerce ci la même mën nga ni sax euh, mën nga tudd sax booy xool euh, waaw commerce. à part commerce waaw même industriel parce que dañu bëgg a. dañu bëgg a industrialiser secteur bi de. am na ñu pare pour def ko.